Euh, mbokk yi ba tey ñu taxaw ak kenn koo xamante ni làmb xam nañ ko ràññee nañ ko kenn du leen ko présenté muy suñu papa président di Diagne Diecko moom mi nga xamante ni tey mooy président des amateurs de lutte sénégalaise père lay nuyu tey ñu ñëw fekk la ci li nga xamante ni mooy euh, euh, wéerantey wala wala joxantey lenge ci diggante président Alioune ak ki nga xamante ni mooy Bira Sène ban yëg-yëg nga ci am ak ban gis-gis nga ci am. waaw li ma si am mooy sant yàlla julli si bi. Hmm. nga may mu nuyu képp kuy amateuru làmb askanu làmb képp ku feebar yàlla wéral la ñu nekk si prison yi suñu borom jëlee leen fa ñu dellu seeni i mbokk ñuy félicité ki nga xam ne ni tey euh, mooy ministre de sports li confiance bi président am si moom ba tegaat ko fi ndax efficacité dëggoom ak liggéeyam tey Bira Sène lañ nommé mu jiite CNG bu ma ko gisee si journal bi dama ne six mooy neuf Bira Sène Alioune Sarr benn la ministre des sports xamal na ma ne du ñu benn Alioune ñi fi nekkoon moo leen fi tegoon 94 moom dafa jël làmb ji dégg ko Bira Sène tànn ay nit yu koy accompagner kon li kay boxoon ne lii du am lii mooy am bokkul ak lii te si biir jotaay bi. ministre bi xamal na ko ne li fi nekkoon mënu fi ne. Mhm. liggéeyal avancé moo gën li fi ne booleel ñëpp nekk benn. du contentieux bu fi am rek nga ne doo du ma ko jindi. Mhm. waxtaan bu fi am duma ko jindi loolu du yor taxu ñu teg la fi. Mhm. liggéeyal lu avancé loolu lam Alioune dem na Bira Sène lañ fi teg Bira Sène na xool nu muy ànd ak nit ñi liggéey. loolu mooy style bi donc ñu ngi gërëm ministre sport di xamal ne ministre la qualité la am na responsabilité am na la am na fayda li ñuy xaar si ministre des sports loolu lañu gisoon kontaan nañ si moom biraa yi liñ koy xamal mooy ne liggéey bañ a xam ne diw moom moom fi nekkoon wala li laay def loolu du dëgg du yoon na xool ni ñuy liggéeyee làmb juboo bokk ndey bokk baay loolu mooy njariñu làmb ba tey fi mu toll nii dafa mel ni Bira ci biir waxtaanam boo digloo discours bi dafay mel ni day wax ni moom ak Alioune Sarr junni la ak 5000 tur yee bokkul rek waaye ñoo yam li ñuy jar. waaw parce que wax na ko. Mm-hmm. nee na léppam la. fu mu jaar lay jaar. Mm-hmm. ministre xamal na ko du fu mu jaar rek nga jaar fa. Mm-hmm. indiw ñu lëf pour loolu. donc tey jubóog arbitre yi ñëwaat loolu bu fekkee ne da koy téye arbitre duñ duggaat day am problème jubook mbër yi bu ko deful day am problème ministre des sports moo ko fi teg nee na ko sama cahier de charge ngay respecté liggéey li nga xam ne mooy yóbbu làmb kan. jërëjëf jërëjëf merci.